ñu dem ci lii quotidien naam bari nañu sax journaux yi nga xam ne bi ñu xëyee demu euh, ko premier ministre Ousmane Sonko ci euh, tukkeem bi nga xam ne defoon na ko ci réew Afrique yi am na ci daal loo xam ni def nañ ko ci wax nañ ko ci lii quotidien nag moom dafa wax ni dañ ko fa toroxal moom Ousmane Sonko beneen bi mooy nee na euh, njiitu réew mi ba mu ñëwee da ko Rwanda da ko tromb jox ko loxo nee na teguñu drapeau bi ci wetam mu mel ni daal dañ ko daal def loo xam ne tabaarkalla mais loolu Assane nag li ma ci doy waar mooy mm-hmm. man bi man gisuma loolu damaa gis premier ministre bu ñu dalal. premier ministre bu ñu accueillir ci accueil bu rafet. dalal ko tatagal ko. jox ko yitte. léegi nag journal la ñoom bi ñu xëyee lii la ñuy wax nee na dañ koo toroxal. waaw. ah wax nañ dëgg kay booy xeex kay xeexal rek <laughs> xeex kay. luy loolu. day xeex day xeex ak ñoom. noonu ñuy xeexuñu de information la ñuy jox. déedéet joxe <laughs> woon information kay dinañ la jox li nga gis. <laughs> Ah, l'information lañu wax de. tey de ko ci caaxaan. <laughs> baal jaamur alaaji. Ah, doo tey moom non bàyyi rek yow bàyyi ko rek. na nga fexe yow itam ba foofu nga ko teg. na ko fa teg kon. ok ah, dégg nga téye foofu. <laughs> <laughs> waaw damay bañ nga ni asset bi xamul dara. xam nga ñoom. waaw kon joxewuñu xibaar. joxewuñ xibaar ndax démb. Hmm. maam tukki bi kenn waxu ci woon. waaw. démb nga indi ko fii El Hadj Sa Ndiogou wax ci. waaw daan na pourtant nee nañ tey dara amul. Uh-huh. waaye ñoom suba duñ bind la am. lii am nii tukki bii nii ñoom dañ ñëwaat bind si. te leneen lañ ciy bind. waaw te leneen lañ ciy bind. waaw dëgg wax na la ko fii démb. Uh-huh. liit nuyoo ñàkk nuyoo gi ñun ñu indi ko victime. di ah, woon ngeen ko. mooy bi nga demee nga ne ma demal. mooy bi ñu ànd ak waaw waaw barki démb. ñu indi ko victime di nekk teg. teg vidéo yi teg nuyoo yeeg yëpp ñëpp gis ko. kon bu ñëwee bind lii mooy damay xeex naa xool lu ma xeexee. Ah, wax nga dëgg waaw yow victime bi da ngaa ñëw indi nuyoo bi accueil bi yëpp. waaw léegi ñaari fan après ñi ñëw daal ne nuyuwuñ ko. waaw kay damaa damaa xam nga nuyoo bi la ñàkk nuyoo bi la ma waa APR doon am waaye naa ma lii leen si xaar moom ñu dem tukki ñu dem faale la. Mhm. man leen ah ñu ne ma mu ngi nii après bi ñu ma ko waxee. nees tuuti am ñu ma am waaye waat nuyoo bi ni ma gis nga ko nii mi waa kër ñàkk jàmm yi fi mu nekk nii léegi gis nga dañuy wër di jabolise te dëgg gaa ngi nii léegi nag ma indi yëpp ñu jox ko topp journal bi kon baa yemul ci vidéo bi ci waaw booba la njëkk a gis mooy bi ñëwee di nuyoo ne weesu ni Ousmane ko moom la gis rek yaakaar ni lépp noonu la demee xam nga loolu amoon na si xuma kum amoon si président Macky Sall ki mu naan kum nuyuwutoon waaw kii la Ahmed Khalifa la waaw ñu ne nuyuwu ko fekk na ndekete nuyu na ko mhm. version yi ñoo ñoo bokkut léegi nag wax dëgg yàlla en tant que journaliste sa doomu réew mu dem si yu mel noonu li nga war a def rek mooy nga nga tiitaroo nga ndamoo ko nga yëkkati ko suñu doomu réew de ba mu àggee ndeysaan bi ñu ko defee nii bi ñu ko defee nii ndax kooku dafa dem pour Sénégal laa demee turu Sénégal dem hmm. pour moom bu demee pour turu Sénégal nag ñu nërmeel ko kon dañoo nërmeel Sénégal hmm. kon nag Sénégal loolu ñu ne malikat wala dëkk booba kat nërmeel na Sénégal hmm. waaw yow yaa ngi nërmeelu waale si loolu jar na jàngat am na yoo xam ne boo koy bind dangaa war a ànd ak sa conscience d'accord ànd ak sa xel ànd ak dal bañ see xuloo bañ see werante mais nga bind loo xamante ni na sagal sam réew bind loo xamante ni dëgg la. kii bind opposant la wala journaliste la. waaw bi muy bind fii nag opposant la doon da doon doon opposé wu. ah bii lii. Hmm. d'accord jërëjëf macha mi muy symboliser moo tax mu hmm. mu jaar fii. Hmm. si élément yi. dafa am élément yoo xamante ni yaa ni sëñ Cheikh bi ma am ma ma yollee <coughs> nga sol beneen yére. non solu ma beneen mais may ciwum. <laughs> Assane Ba da ngaa laa wax bu bu simmee bu bi rek xam leen ni nag pare na damay cuubu laa wax. ah da nga cuubu. waaw ah maa ngi koy laaj Assane ndax opposant mooy wax wala mooy bind wala ak lu mu ci mën a doon dama lay bàyyi rek nga ñëw ci jàngat yow waxoon nga ko fii démb. Mm-hmm. ni gaa ñi fi ñu toll nii li nar a am démb bind nañ ko nii ñu ngi sos nii. Mm-hmm. ay la yéwén loolu moo mujjee am bi ñu bindee lu bon lañu bind ca euh, tukki bi waa xam nga parrainage sax am na yoo xam ne moom bu ñu ko attribuer opposition. tey hmm. euh, euh, nekk opposition boo xam ne bii xamut. Hmm. maanaam même bu xamee sax warta doxalee noonu xam nga tey ni ñu ko mën a woon waxee rek mi ngi mel ni tey. Hmm. Euh, premier ministre bu nekkee fii ci biir réew mën nga opposé moom mais bu génnee ci bitim réew. Sénégal la représenté. waaw mi ngi mel ni tey bu ma la ko doon misaal. tey dama lay wax ne la champion Sénégal. Mhm. maanaam ñëpp dañuy xëccoo. bu ñu xëccoo ba pare ñu ne kii mooy champion Sénégal moom moo waree football ji Coupe d'Afrique léegi nag yeneen équipe yi dem di wax ay faayam. Hmm. maanaam di ko doya dal. Mhm. ñooñu kon dañuy génn ci sensu li nga xam ne moom mooy yëf yi dafa mel ni ñi taxawaay boobu lañ taxaw. maanaam mhm. taxawaay bi ñu taxaw doo xam ban genre taxawaay la da ngay naan taxawaayu nit la wala taxawaayu dof parce que dof la gën a jege ci nekk taxawaayu nit. Ousmane Sonko àddina bi ñëpp a ko xam. daanaka. Mhm. maanaam ñi nga xamante ni ñoo ŋànk dëkk yi. Mhm. daanaka ñëpp xam parce que histoire Sénégal bi jaar jaaru Sénégal bi dafa extraordinaire. Mhm. maanaam sakk la ci képp koo xam ne teew na ci sam ndaje. yow am nga fierté am nga ci mbégte. ñëw nañ sax ci leneen nee nañ lu tax muy bañ troisième mandat dem di. dëkk boo xamante ne bi kooku mi ngi célébré quatrième mandat. waaw mais Sénégal lañ bañ troisième mandat. Hmm. waaw yi ñoo ko bañ. xam nga loolu moo lay wan ne la ñoom journaliste yi sax pare saa yi da nga naan ñii est-ce que ça hmm. lu waay dëkk ba bu ko nangoo lu ci yoon Ousmane Sonko. Hmm. dëgg dëgg ah dëgg dëgg. dafa fekk ne ñoo ñu seeni luwaay dëkk le fait fii lañ ko bañ ñu ne troisième mandat du fi am. parce que luwaay réew mi moo ko nanguwut. comprendre la donc bu koy xeex fii. day kii mais mën na dem dëkk boo xamante ne bi président ba mën na feete sax vingtième mandat bu ko luwaa dëkk ba nangoo loolu yoonu Ousmane Sonko newu ci. dégg naa dégg tey jii boo taxawee ne dañ ko doyadal dañ ko loolu te nga gis le contraire xam nga moo tax Assane ne la dañuy xeex. waaw waaw moo tax xam nga ñii kenn maanaam nit ñi dañ dul am sax seen kii quoi. boo mhm. seetee lii nga xamante ne bi moom la ñu taxawee. Mhm. taxaw ne dañuy xeex ak ñii. ñoo xam ne defuñu la dara defaloo leen dara pour ñu yegg si. Mhm. waaw non seulement ñii defuñu la dara te defaloo leen dara pour ñu yegg si da nga leen a xeex ba ba ñuy yegg si. da leen a xeex presse dañoo xeex ñi nekk au pouvoir tey dañu leen a xeex ba ba ñuy yegg si. bu seen pexe sottoon daal ñii duñu yegg si. non duñu yegg si presse bi yëpp toll nañ fi benn période boo xam ñu ngi campagne pour. report élection yi ba ma xaat élection yi bu mu am yaa ngi dégg. Mhm. taxaw nañ ba tàyyi invité ay nit ñuy jëmmal ne ñii waruñoo dem ci ay élection xeex nañ ko ba tàyyi yàlla moo dogalut lool yaa ngi ñu ñëw defuñu la dara nga xëy ne dañ may xeex ah bëgg a continuer nag léegi euh, maanaam xam nga di bind loo xamante bi yow mi koy bind xam nga li ngay wax du dëgg ba noppi nag léegi nga koy jaay ay nit lan la ay nit c'est que tamit parrainage da nga naan nit ñi moo tax daanaka kenn jëndu leen ah Mm. kan mooy jënd FM. ah loo xam ne man damay gis lii nga wax ma lee. amul xaalis la de jënd kan moo ko jënd donc lenn la rek ñoo jiite yenn média classique yeeg et cetera bu ñu bindee seen kii danañ leen revue de presse wasaare ko et cetera. Mm-hmm. loolu rek mooy li nga xamante ne bii mooy mbir mi. d'accord comprendre. Mm-hmm. te man pare saa yi damay wax ne booy sax am nañ ci part de responsabilité ñi nga xam ne ñu ngi fésal seen i seen i mbir. Mm. tey bu ñu leen bàyyi woon léegi ñu xam ne tekkiwuñ dara. presse bi teewul. ah mais a tontu démb bi ñu ñëwut la xibaar yi gën a sax neex. waaw yëf yi wulee ñaay. dëgg la ah. dëgg la yëf yi di wër wër. Mhm. Ah? xam nga loolu dafa nekk loo xamante ni bii. d'accord euh, lu day waar la. donc nu waa ji daal. léegi kii bind alaaji boo gisee ma ni euh, Assane kii bind xanaa opposant la muy xalaat bi xalaat opposant yi ñoo ko daan def. non opposant opposant xam nga xibaar euh, journal da ngaa war a joxe xibaar informé. Mhm. mais lii moom du information. waaw mais ñii duñu ñii duñu kii duñu ay journal yu normal son yi journal yi doo nga ni journal yow Sénégal yow defe nga ni bu fekkoon fekkoonte ni normalement. Hmm. journal yu normal ñoo fi nekk yow yaakaar nga ni lii fi nekk ci presse dana fi ne. Hmm. yenn hmm. presse yëpp dañu fi dañu war a naax saay kaay wax la am na presse yu bari yu war a naax saay yoo xam ni danañ wax ne état moo leen ko kii fekk ne c'est naturel dañoo war a naax saay ña leen téye woon dootuñ ci def dañ fiy jóge. du impôt leen galgal du dara leen galgal. mais dañ fay daan ñëw moom moo du ñëwati dañ fiy jóge question de temps la rek léegi nag ñooñu lañ bëgg a wax ne après bëgg koo sëf ci ndoddu état daan ne état moo nasaxal ba ñii tëjaat ñii tëj ku ne xamoon na ni ay sunu làmb ak yii ña fa nekkoon daan ko doxal. Hmm. bañ demee ubbi seeni seen YouTube nekk ca. ñan hmm. ñoo fa des. Ah dafa mën a tee dox. ah déggoo fi ay Lutte TV ak ay kii ak yeneen yoo xamante bi l'autre jour rek Modou mi ngi ko doon expliqué mhm. yeneen yoo xamante ni bi juddu na mhm. fu ñu juddoo foofa lañ jógee dem xam ni ñoom ñi mën nañoo am leneen ñu dem créer seen yëf yi bopp mhm. ah journal ba day naax saay ah, am na yeneen yu war a naax saay yu bari yoo xam day naax saay ok xam nga journal yii ay la mandat yii yëpp dañuy naax saay yi <laughs> waa ji moom moom ah kii xam ne naa ko kii nekk doon 2 kii moom moom lii ak tàng. la gën a sedd. yow <laughs> gën a sedd ah, kii moom moom gis naa de. ak tàng tàng yow foog seetaane muy tàng. ay dagg ah. day dóor rek. la ilaha muy dóor xamul li muy dóor. ah moom journal bi di nelaw. <laughs> même desis la nekkoon xam nga lim bind du yëfi nit. Hmm? bind loo xam ne yow mi sa xam nga ne amut. Hmm. desis la nekkoon daan dóor rek mais bi gaa yi faloog léegi daa mel ne dañ ko faa jëlee de daa léegi site internet lay dóore kon nag yaa ngi jaboli sa de ah déet man <laughs> desis bàyyil bàyyil 2STV dama ne falaatraa gis mu daan dóor état bi gaa yi faloo ñu jëlee ko fa bi gaa yi faloo gis muy dóor si seen YouTube léegi lay dóore gaa yi seen YouTube waaw ah. <laughs> parce que den da ak a tàng <laughs> ay léegi kenn ñimetu faa dóore hmm. léegi kay moom rang yi jub rek macha allah ñëpp def noonu na rang yi